président Makhtar Diop ñu ngi lay ziar donc président Makhtar Diop ak bopp de dañuy liggéey ak président Macky Sall ku boole wu dara ki wax ñëw na barke Serigne Touba nga mu kuy liggéeyal président Macky Sall Alaaji Makhtar Diop ci nga xam ne liggéey président Macky Sall da koy feeñal mi ngi nii de barke Serigne Touba président kii looy nekk si moom nga président kii looy nekk si moom. parce que l'homme de parole. ñu xamul looy nekk si moom jàmbaar ji. l'homme de parole. la ilaha illallah Alaaji Makhtar Diop au conseil.

saa waa ji may ma ñëw ma jël président ci président Macky sal wóoloo ngoog donc ci président Macky Sall wóoloo ngoog El Hadj Mokhtar Diop au conseil yi nga xam ne mënul tekki wax. Mokhtar Diop mi nga xam ne moom la président daa war a wax ginnaaw rek la laa mag ne su laa gën la gis bu dee la ci rafetal ci ko rek rafet. comme lu président di nekk si yow waaye président war o gaaw si yow barke Serigne Touba même bu président jëm ji xawma loo nekk si moom waaye war naa gaaw barke Serigne Touba Alaaji Maxtaar Diop au conseil sans waa ji kii président Macky Sall wóolu nga xam ne bu ñëwee li muy o wax Serigne Sidi mooy ah président Macky Sall na nga ko ñaanal ah yow yow yow yow man ngaa dégg président Idi Ka maa ngi ñëw may ko mu ñëw may ko mu ñëw attention trois lan trois lan trois lan xaadim ah, barke Serigne Touba manes manes nees laa mag waaye manes su laa gën de ngam ko manes nees laa mag waaye manes su gën de nee naa la judd bu rëy nekk bu lëndëm la jikko moo ko rafetal may ko ñëw sëñ bi tey ji bisu la defal nii ndànk maa ngi jéglu baax soirée